bokk yi ginnaaw bi ñu sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen baalu xaq ànd ak di leen baal xaq di ñaan suñu borom tabaraka wa taala jaamu gi ñu ko doon jaamu ci weer wi ñu génn mu nangoo ñu jaamu gi bu ko nangoo mu ful ko denc na ko ku yàq ak gut ginnaaw loolu maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali weeru koor wi nga xam ne moom lañ jeexal nii weer la woo xam ne wu bari ngëneel la weer la wu yomba jaamu yàlla di weer woo xam ne suñu boroom dina tënkal doomu aadama seytaane ba du ko mën a yàqal dara ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne mooy weer wi nga xam ne dañ ciy ubbi bunti aljanna di ci tëj bunti sawara weer woowu nag bu demee ba dëdd ñu war nañu am ak fàttaliku baax suñu bopp xool li nga xam ne moo des suñu kanam ci fàttali suñu gannaaw lépp luñ ko safoo ci ak jaamu yàlla ñu fexe ba yokk ko su ko defee ñu yëg ne weeru koor weer la woo xam ne dafa ñëw ngir former jaam bi teg ko ci yoonu jaamu yàlla ngir bu weer wi jàllee lim doon góorgóorlu ci biir weer wi mën koo continuer lu mel ne tey daa mi am ci wax ju amul njariñ ak wax joo xam ne suñu borom gërëmu ko lu mel ak di jëf ci yoonu yàlla lu mel ne di jëf alal ànd ak di bari loo jàng alquran ndax ku ne xam na ne weeru koor mooy weeru alquran bu fekkoonte ne dañuy defal anniversaire alquran ci weeru koor lañ koy defal ndax ci la wàcc weer la woo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana bari lu ci daan farata lool daana bari lu ci daan naafila ba àgg ci wax ne dinañ ci jàng alquran ndax ëllëg yowmal qiyaam dina dikk di ram mbokkam mi nga xam ne moo ko doon jàng rawatina ci weeru koor kon nag su weer woowu dëddoo war ñu gannaaw war nañu fexe ba bàyyi ci xel bu baax su ko defee ñu yëg ne war nañ cee góorgóorluwaat ndax li nga xam ne moo nekk ci suñu kanam ci ay weer bari na waaye nag amul benn weer boo xam ne wax nañ ñu ne suñu boroom tënku na ci seytaane kon nag ñu ngi doog a jub jub jëm ci combat bu mag bi nga xam ne tey moo nekk suñu kanam te mooy fukki weer weer fukki weer benn yi nga xam ne ñu suñu kanam te suñu boroom dogal seytaane di ci tuddee ñun nu ko soobee ndax kàttan gi mu amee woon suñu tubaab daa wax ne bu weer koor daan dëgmal seytaane daan naa farlu ci lu ma mën a def sama métier ndax kat bu ko liggéey danañ ma gàllankoore bu jàlleet mu ne nag naa farlu dabaatal li ma rawoon su ko defee ne nit war nañoo góorgóorlu bàyyi xel loolu bu baax xam ne seytaane yi ñu ñuy galgal guddeeg bëccëg du yokkat du tàyyi te du sonn suñu tubaab di dénkaane ak jaamu yàlla jamono bu ne ak saa su ne ak ko julli mën a nekk bu koy dénk ne aleykum yaa maxsar ixwaani bitaatillahi bila udwaani taxaababu fillahi bil jalaali بلا تنازع ولا إطلال إن الصحاب وهو الإيمان لأهله السرور والأمان mu wax ne maa ngi dénk yéen mbokk julli ñi ngeen farlu bu baax jaamu yàlla yoo jaamu yàlla boo xam ne du ngeen ci yokkat benn yoon te nag na ngeen faral di bëggante di dimbalante ngir yàlla ngeen di bëggante di bañ di xëccoo ndax bëggante googu kat mooy wàññi ak ngëm yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne du ngeen gëm yàgg du ngeen dugg àggal mukk du ngeen gëm yàlla waaye nag bu ma mën a gëm yàlla mukk dugub da ngeen bëggante kon nag jullit bu nekk war naay bëgg mbokkum jullitam ba lim yéene boppam mu koy yéene rawatina bu fekkee ne gis na ne mu ngi ci ay jafe-jafe mu ngi taxaw di ko dimbali te yàlla rek tax mu tax suñu wax ne ne wa ahdiyu mumina lil imaani wala tubridul kaafira lil kufraani walaw ataa ilayka bi janaaya daaka wala bil maali bil kifaaya nee na na nga bëgg jullit bi ngir gëm di ngëm yàlla na nga bañ yéefar bi ngir bañ di bañ yàlla su ko defee jullit bu fekkoon ne dafa daa ñëw dina tool mbaa mu andi loo xam ne gënoomu ko na nga ko def ngir nekk di nekk ab jullit yéefa beeg bu fekkoon ne dangaa andi alalam su daan ngoon na nga ko bañ ngir dafa bañ yàlla te loolu dañuy firndeel ne dañuy suñu borom wax alquran ne alquran di wax di wax ni yéefar yi ak nasaraan yi duñ leen mën a bëgg mukk lu ba da ngeen a bàyyi seen diine ji teg suñu li nekk kon nag luñ la mën a jox ci alal luñ la mën a diis wala luñ la mën a dikk jàppal ne loolu dañ la koo wax waaye taxul ñu gëm la taxul ñu bëgg la seen pexe mooy yàqal li nga nekk walan tarda anka al yahud wala nasara xatta tattabia millatahum su ko defee dund bu nekk war nañ bàyyi xel ci loolu may dénkaat sama bopp di leen dénk ñu farlu ci gàddaay suñ bakkan ànd ak di koy xisaab di góorgóorlu ci li ñu yàlla digal ba tax na suñ tubaa wax ne xaafil nafsaka fi xulwatik xaafil nafsaka sabaxa wa masa tekun min al ada tekun xadan min al ada muqaddasa mu ne la nga fexe di farlu ci di xisaab sa bopp saa soo xëyee suba ba tëdd ci guddi ba da ngaa nelaw na nga xalaat bis bi li nga yend ci bis bi gën jëf nga ci jëf goo xam ne yàlla gërëm na ko bu su boo yëgee ne am nga ci jëf yu bari bi su boo gërëm nga farlu fexe ba bu ëllëgee nga yokk ko su fekkente ne yëg nga ne am na lenn lu manqué ci sab jaamu yàlla ci bëccëg bi nga fexe ba di ko bàyyi xel di ko dabaatal ci bis bi nga xamee ne moom la su borom may nga am kàttan mu ko cee dabaatal loolu nag julli bu nekk war na ko bàyyi xel ci boppam ki nga xam ne moo la bindu wàcc la ci kaw suuf war ngaa bàyyi xel ne li tax mu waajal ci kaw suuf day caaxaan mooy jaamu yàlla rek moo tax mu waajal ci kaw suuf jaamu yàlla googu nag nit ki da ko war a def bekk na muy faatu moo tax bi suñu borom ne waabud rabbaka xatta yatiyaka yaqin suñ tubaa da koo déggee ne moo na nga jaamu yàlla ba dee dikk kon nag nit ci àdduna war noppalu benn yoon rawatina lii nga xam ne moom la jugee muy weeru koor bi nga xam ne weeru màgg la julli bu mu tege ci kaw suuf war ngaa góorgóorlu bu baax ba su demee yóbbaale la ay ngërëm dafa dafa ci fekk sa boppam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne amul ko gën a perte ki nga xam ne weeru koor dikk na ba war gën naa bàyyi ko ay bakkaar kon nag loolu lañ ci dénk di farluwaat bu baax jaamu yàlla ni ko sëñ Tuubaa waxee mu def na wax tani mu xamsan qubay la xam kama bihi amara xayrul insi awaluha shababu qabla alharmi wa minhu sixatu qabla siqami ثالثها الغناء قبل الفقر وما ثم الفلاح قبل الشغل يخلي mu wax ne na ngeen góorgóorlu farlu ci jaamu yàlla jamono bi ngeen koy mënee balaa tëlu ñëw mu ne bu nit ki nekkee waxambaane ne góorgóorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ndax na gëm ne liggéey jaamu yàlla la ndax ki nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wax ne ki nga xam ne ne xëy na suba di liggéey di wut du jox jawwatam moo xam mag la wala ndaw la na ko wóor ne bu fekkee ne ma ngi koy wutee ci lu yàlla gërëm ma ngi am yoolu ku dem badar kon loolu su ko julli ba xasee gëm moo ko mën a ne la waxtam benn yoon ci ay caaxaan su ko defee mu wax ne na ngeen farlu ci bu ngeen amee ak yéen ci góorgóorlu ci jaamu yàlla balaa wér nga dikk su la yàlla dénkee alal ngeen am am koom na ngeen ci dimbale jaamu ci yàlla ci nit ñi te rawat na jamono bi ñu toll nga xam ne am na ci ay bokk julli ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci ndox mi suñu borom dogal na seeni kër ñàkk nañ ko te am na ay julli ñoo xam ne dëkk nañ ak ñoom xam situation yi dund ñooñu suñu borom mi ngeen di bàyyi xel mi leen digal leen da ngeen di dimbali seen mbokk julli yooyu ngeen nekkal ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ne du du gëm yàlla mukk moom jullit bi li feeg mi ngi jëfandiku ba suur tëdd nelaw dëkk ak ki nga xam ne am ku mu dëkkal koo xam ne bi mu reeree bu xëy suba amul lu lekkee te tey loolu mel na ne ñu ngi soxla ji nga xam ne ñu ngi koy dund day gis koo xam ne day tabax këram daal di kaaro ba ci biti dëkk ak koo xam ne wóor na ko ne tey amul ndefaasoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kooku moom am gëm yàlla nekk ci moom kon nag képp koo xam ne suñu doon nga mel noonu bàyyi xel ne xaalis boobu ca kaw la dal su ko defee suñu borom nee na lépp lu ngeen dépassé ngir sama jëmm man yàlla jaare ko wutal wa ma anfaqtu min xayrin fa huwa yuxlifuhu waxaat daan ne wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen jiital ci ay jëf ju baax dangeen fekk ko yàlla suñu borom de su boobaa da koy da koy rëgal ful waaye du ko wàññi te lay misaal jëf ju baax ni mu toll ci nit fa moroomam ba tax mu wax ne masalu ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali xabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu xabba wallahu yadaahu man yashaa wallahu wasi'un alim ñu doon di wax ne misaal yi misaal yi ngeen gën a falu ci di di dimbali nga yàlla ama leen misaal ki nga xam ne day bay su nawet defee mu jël benn kàtt duggoom suur ko ci suuf yaakaar yàlla yàlla ne ma xamal ko taxaw ko juróom-ñaari gis bu buune am téeméer man yàlla loolu lay xëyee waaye dama fay ko lu ma soob damay damay dugal nit ki lu ma soob ci ak fayam ci ab liggéeyam bu defee benn moom ma fay fukk waaye fukki yoon mën naa koy doon fukki yoon mën naa doon fukki téeméer yoon mën naa doon fukki junni yoon su borom ak fayam la ma demee kon képp koo xam ne yàlla dogal na ngay liggéey nga yàlla di dimbale nga yàlla na fexeel dal ci ne ngay jëf du ne mukk su borom mi la ko dikk lu ma soob wuute ab digam su nga defee ñu tënk suñu bopp ñu farluwaat bu baax ci jaamu yàlla di leen ko dénk di fàttali ne suñu bopp dañuy fàttali ne nañuy bàyyi xel di setantal yi jóg ndax kat am na ñaar ñoo xam ne si borom dëkk nañ ko ñu ñu kat saa su ne luñ jóg dañ li ko bindal te bis dana ñëw suñ borom def ko mu nekk ab téere mu ne jàng leen ko su gën a ñëw képp koo xam ne lu waaw jëfoon sa jëf yaaxul àgg sa bopp suñ borom day wax ne al yawma naxtimu ala afwaa wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun bu sa boo xam ne bu dikkee yàlla day kasal seen làmmiñ ba subaa kenn mën a wax subaa muy wax tànk nga wax ak loxo yi loxo yi lépp lu mu jëfoon ci lu baax dana ko wax waaye bu sabab dana ko wax tànk bi képp su ndoxam jëm fa defar ba yàlla rek nekk fa su boobaa dina ko wax su fekkente ne nag yàlla gërëm ko dina ko wax kon nag su boobaa biir bi bàyyi xel bis boobu ak def bi nga xam ne su borom mi ngi koy misaal ne gën a am war ne góorgóorlu baax jaamu yàlla day saa boppam moo tax Omar boo xataab rabi yàlla wax ne xaafu bu an turum xable an tuxaasabu wa taalabu bi suluqi fi amal xable an tutaalabu wa dinu amal wa xable an tuzamu mu ne dee leen si saa seen bopp ci dee leen seen bopp ci seen jëf njëkk ñu leen di régler dee leen di sàkk def lu baax ci ay jëf ak di ko wax lépp ñu leen koy sax lépp ñu leen koy laaj kon nag nit ki fu mu toll war nañ bàyyi xel li ñuy wax ne ko bala wala mu ko jëf nañu tiiral yàlla ndax am na bis boo xam ne bu dikkee suñu doom ma nga cee wax ne lépp lu waaye defoon da leen ko ko andil mu nekk bis boo xam ne bu jaat mukk mu dama wax taqu yawman turjauna fihi ila allah dañoo ragal di bàyyi xel bis bi nga xam ne ci leen ko la ko yàlla ndax bis la boo xam ne li ko waaye andi danañ ko ko fay bu dee lu baax wa in xayra xayra leen kara fa sor su ko defee loolu julli bi la war a koy bàyyi xel ñi ko wax baax ci jaamu yàlla yi ñu ko suñ ko waxee ne wa arxamul asiyaay lil amwaati raddun ila dunia maa alxayaati walaw suwayatun faqad li yacmalu saalixan tanfaahum in qafalu mu ne ñi faatu ba moo xam ak ku ne weer wala fan wala ay at boo ne leen fëkk fëkk laaj na lan ngeen la bëgg nee na duñ la wax aljanna waaye duñ la wax daw sawara dan naa la demaat ci kaw suuf di dund ngir ñu mën a jëf jëf ju baax ba suñ demaatee ci ñu nekk mu mën a jëriñ loolu nag ñun ñi dund demagu ñu ko xam waaye kii misaal moom am na yaqin ci wax ne ci ko amul ne noonu demee suñu borom nee na am na kooku bu ko dee dikkalee dina wax li ngeen lii suñ ko wax rabbi joxooni la an li amalu saalihan suma tax am na koo xam ne li ko ëmpoon ci kaw suuf bu dee ba nekk moom gis ne dee dikk na amatul lenn loo xam ne li ñu ci daan tawari la mu jëy def jàpp ne loolu ay pexe wax la boo demee ba mbiri leefoon dana dell ñaan borom ne ko delloo ma ci sama kattan ma man laa jaamu jaamu gi nga xam moom la ma gërëm ba nga digal loolu nag kon ko si moom dawala ñun am nañ julli ñu baax ñuy farlu di ñuy dajj bu baax di ñu fàttalee li nga xam ne ne mooy li xew te ñu accédul de danañu war a jox ak sawarte bañ gën a farlu ci liñ nekk su ko defee may dénk sama bopp dina fàttale ne suñu borom day ci kaw suuf alquran la fi am ak jullit ñi ak barab yi nga xam ne dañ koy tudd tudd ci borom mu jàkk yi alquran dañu la tey jamono bi ñu toll toll nañ ci bu ndax daa ko fii ci Ndakaaru te mel na ne jullit ñi amul ñenn ñoo xam ne day li ma xam man laa wax de ku jël kàddu di wane ne alquran ji ñuy bu ndax daaw naqari na ko te loolu jullit ñi ñëpp ci am faar ndax ba lislaam taxawagut suñu borom moo doon defal boppam am na ci benn mbindeef borom boo xam ne taxawoon na day dindi kaaba gi da koy mabbu kam fa fekk ci wàllu kilifteef dafa wax ne rabbi inna lil bayti rabbun sayahmihi kaaba gi daa am borom dina ko aar boromam it taxaw na wan ko ne maa moom kaaba gi maa koy aar tey nag jullit ñii ñoo taxaw di représenté alquran ci kaw suuf bu suñ ko attaqué jullit ñi ñoo war jub suñu borom napp na ci ci suñ sàgganee ba alquran bi nga xam ne day fexey état Sénégal ak ñu ànd ak moom mooy jële ko ci mooy jële ko ci Dakar su boobaa di nekk gàcce ci ñi nga xam ne ñooy ay julit di ci dëkk di ci dund te nekk ci te ñu am ci pexe ndax yelwaan nii ñu tey aw yoon la woo xam ne dañ koo tàmbali waaye nag kenn xamul fañ jëm ndax ci njëlbeen dina def aar boo xamee ne ñu ngi waajal vac- vacance ñu ngi waaj ñëw rajo bi dana joxe ay xibaar boo xam ne julit bu amul ngëm bu dëgër sa doom moom nga ko yóbbu daara ya julit bu seen daara yi doyal xale yi julit seen daara yi ñuy sacrifice xale yi bu nekk nekk waaye taxul julli ñi am seen ngëm dëgër te ñu nekk alxuraan dara leen wee tey nag àgg nañ ci weñ loxo mooy dañuy wax ne dañuy aayal waan lenn ci ay bal ci biir Ndakaaru ci di fa ay sëñ daal yoo xam ne wax nañ ne arrêté leen te loolu ba léegi moom déggoo benn jullit boo xam ne ñu ngi def intervenir te wane ne ñooñu ay amee xaq te nit ñi di wax leen ak ñi nga xam ne tey ñoo ñoo compté alxuraan ci Sénégal ay dongal ñu woon dan dañu wàll yàlla ku ko bëgg a dindi fii ci réew mi nga ne wóor ne yaa ngi jéem dagg sa borom te wóor na boo xam ne daray àdduna jarul nit ki di jël àdduna àll àdduna di ko joxale di gën a boromam te du laa wax ne ndaw lu mën a loo ko alquran daray àdduna jarul xañ alquran kon nag ay bokk julit lay waxal ay bokk talib ma leen di fàttal di fàttal di dégg ne leen alquran ji nga xam ne day fexe nii nit ñi taxaw di ko bundaxa alquran noo nga ci joytu jullit ñi ngir ñi nga xam ne alquran ñoo ko moom kaw suuf ñu taxaw ci dimlatu ñi nga xam ne dañoo néew doole ndax tey ci gannaaw benn weer jël nañ ñaar téeméer million ak lu topp teg ko ci taabal bi ngir ne nan ci nan du mën a bi teg ko war a coupé ku ne xam na ne tey am na ay jullit ñoo xam ne am nañ dool toll ne jullit ñi nga xamee ne dañoo am yéene liggéey alquran ci seen loxo jiru seen gannaaw ñu leen abal ay kër ñu yelwaan am na nañ am nañ si nekk ñoo xam ne lañ ko luyee lañ ko luyee yàlla seer na ne bu dikkee bu ci def ko sax dañ koy may wax mbay def xelal te loolu joxal ko yàlla moo gën te yàlla loo ko jox mu gàddu ko fulal na ko kon nag noo ngi dénk suñu bopp seen dénk ñu foog wax ci loolu di bàyyi xel loolu ndax gis nañ fi ay ñoo nit ñoo xam ne ñu ngi jël ay engagement ay mbir di leen defal ay financement di leen jàppale di leen wutal ay simis bu fekkee ne ay yére bu fekkee dañoo war a dem ba war a bëri ji di leen taxaw wu taxaw boo xam ne lu baax la ñuy faatu te duñ taxaw lu ba leen bar mu xam tey loolu lañ ci am boo sëgg mu jeex borom bi nag moom boo ko liggéeyal doo xool adduna doo xool furu da ngay fexe wut ngir yàlla te xam ne bu la fayee dund gi nga dund ko suuf bis boo faatoo lam lam koy xaaral moo ëpp doole fuuf